ñu dalal tey euh, Dame Thiam muy président conseil de la jeunesse bu Kër Massar Dame ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Elisabeth. voilà ñuy waxtaanee Kër Massar jamono ji nga xam ne ñoo ngi àddu nii ngay teewlu autopont bi euh, ci alentour yi dañ ko tëj maanaam auto du dem du dikk euh, tey euh, justement nan nga jàngatee li ni mel. waaw li ma ko jàngatee d'abord di leen remercier bi ngeen ñu may opportunité ñu wax ci tey rek bi may xëy foofu laa jaar tëj nañ ko mais quand même dañu wax ni message defoon nañu message wax population bi ne leen dañ ko tëj mais tëj bi. c' pour mën a defar ci biir finition la daal finition fii ak treize heures bu ko defee ñu mën a bàyyi gars yëpp mën a jàll en attendant le treize gars yi na ko inauguré c' difficile moom laay wax euh, mal nécessaire métti na trop parce que tey booy booy jaar Kër Massar sa yaram day daw day daw oto yi du jaar fi oto du jaar fi nit ñi da ngay gis fi biir oto yi fi ñuy jaar foofu la nit ñi di jaar métti na trop mais nag quand même ñuy wax rek à l'impossible nul n'est tenu. et justement ci liggéey googu leen ndax jàpp nga ne la diggee woon ak askanu Kër Massar muy délai bi respecté nañ ko. waaw délai bi comme ni ñu ko waxee yàlla dafa def ne ba ñuy toog di di ko waxtaanee euh, yàlla def na nañ ñun ñoo. bokkoon nañ ci ñu teewaloon ndaw ñi parce ndaw ci tali bi Euh, di assurer sécurité bi ci ndaw ñi loolu bokkoon na ci ñu digaale woon <clears throat> ak ñi nga xam ne ni tey ji moom mooy askan wi pour réguler euh, circulation bi loolu beneen bi mooy délai bi mooy euh, fukki weer ak juróom juróom-ñett la woon mm-hmm. te ñoo ngi ci délai bi pour man ñu ngi ci délai bi ñu ngi ci délai bi délai bi ñu waxoon également ñu ngi ci c'est le moment de les féliciter et wax ñi nga xam ne waxoon nañu ko te vraiment ñoo ngi ci donte nag lépp matewul nag mm-hmm. waaw si c'était à refaire danañ toog ñu waxaat ci voilà c'est c'est ça quoi mais quand même bi moom moom mën nañu wax ne ni vraiment ñoo ngi comme ni nga ko waxee sànq pour reprendre vos propos lu mënul ñàkk la ah c'est un mal mm. nécessaire waaye tey jii mm. euh, justement travaux yooyu la ñàkkul ne li mu gàllankoor bëri na ndax gis nga Kër Massar tey jii comme ça barbu tas wala. waaw waaw li nga wax ni moom moo am. moo am euh, lu mënul ñàkk la moom laa wax sama njëlbeenu wax tout à l'heure ma ne la. Euh, bu fekkante ne dañoo ñëw rek def ko te avisé wuñu dina doon gën a métti parce que da ngay xool actuellement fi ñu ko fi ñu fi ñu arrêté ñoo ngi dem ci ay fête te foofu noonu c'est un lieu attractif foo xam ne ni tey kër ak mën naa ne banlieue lii yëpp yaakaar nañu ku ñëwul jaay ci foofu wala def say activité euh, amoo lu la neex ki nga xam ne per de famille la ki nga xam ne ndaw la ñëw foofu noonu tey war a taxaw donte nag foofu noonu wax dëgg fa yàlla du lieu boo xam ne ni tey jii dañ fa war a taxaw te xam naa ne bi nga ma may benn foofu noonu balaa émission bi di jeex ma lancer appel par rapport ak bu pont bi pare lan lañuy xaar ci autorité yi au niveau local lu ñuy xaar d'abord hmm. ñu ñu ñu ñu jël en considération ñeent ñeent quartiers yi ma la wax d'abord gis nga bu fekkante ne ñoom jël nañ leen en considération muy Darou Missette ak Medina Kell à l'entrée booy dugg Kër Massar à gauche mooy Darou Misset à droite mooy Medina soo demee ba jéggi pont bi à droite yaa ngi am cité enseignant mooy Aynou Madi à gauche yaa ngi am unité 2 gis nga ces quatre unités là il faudra que la mairie ci boppa mu dem fa waxtaan ak ñoom jël ne euh, autopont bi d'abord ñoom ñoo ko war a sàmm ñoom ñoo dañ leen war a intégrer impliqué munoo def un projet sans impliqué mm-hmm. mm-hmm. ñooñu dañ cee bokk parce que booy xool inondation bu métti def lu fi musul woon inondé ci biir Darou Minane dafa inondé ba lieu do boo xam ne tey fa la ñuy jul jullee seen it dafa dafa dafa amoon dafa amoon ndox mhm. donc loolu noonu c'est c'est c'est vraiment un un moment euh, foor ñu ñaan autorité yi muy Adama Sarr d'abord mhm. mais euh, comment le préfet le président de la République que nañu woote waxtaan ak ñeenti ñooñu d'abord mhm. seen ndaw yi fa nekk ñu intégrer leen pour plan de suivi. ñii nga xam ne ñoo fay taxaw ñu bu dee am na ay arrêté yu ñu bind nañu arrêté gars yi bañ a taxaw foofu noonu parce que gis nga oto boobu noonu gis nga oto yi ni ñuy jàllee bu ñu continuer c'est vrai que am na ay barrières am na lépp mais buñ ko bàyyee noonu sans réguler ko catastrophe dina am yàlla tere ay oto yu mbëkkanteeg lu kenn xamul damay ragal ay accident am fa kon nit ñi nañu xam ne foofu noonu du lieu bu ñu taxaw di jaay autorités yi nañu yi beneen place marché ñu yóbbu fa nit ñi nekkul ne foofu rek lañ mën a taxaw foofu vitrine la c'est le poumon de Kër Massar. Kër Massar dafa war a noyyi dafa war a noyyi booy dugg si da nga war a xam ne dugg si nga Kër Massar mais bu fekkante ne autorités yi dañoo autorisé bind ay kii di autorisé gars yi di jaay ci kaw la foofu noonu mais aussi ñëpp fa la ñuy ñëw donc en tout cas si seen antenne laa ko bëgg a jaare bi ñaan njëkk euh, le maire l'actuel maire di ñaan président de la république li mu def rafet na on applaudit vraiment on applaudit te ce qu'on attendait mais ngir yàlla suivi bi aussi dañ ko soxla añu dimbale rek. ñu def ay marché feneen jël en considération population Kër Massar c'est vrai mais ñeent quartier yi ma la wax nañ waxtaan seen conseil de quartier yi nu dund nañ leen outiller nañ leen accompagner ba nga xam ne ñoom également ñoom seen foofu noonu danañ ko danañ ci mën a veiller bu baax a baax. justement muy département bu bees tey yaa ngi wax maire bi muy élu bu bees bokk ci ñeneen maire yu nekk foofu ci département bi ndax yéen ndaw yi gis ngeen seen bopp justement depuis ba élu yi ñëwee ci seeni politique. waa pour le moment pour euh, maire toogagul ak ndaw ñi bu ma ne toogagul ak ndaw ñi mooy conseil de la jeunesse. Hmm. ci boppam. Hmm. l'actuel toogagul ak ñoom peut-être bi muy dem campagne amoon na politique de jeunesse am si la base de cela que Kër Massar fal loolu lay jàpp mais actuellement ni si ñu koy xaaree en tant que conseil de la jeunesse ñu waxtaan ci loolu peut-être fii ñu nekk damay jàpp rafet njot rek ne tabaski bi ñu nekk la inondation yii di ñëw. depuis boobu ba mu toogee léegi kay tabaski ah, am waaw waaw wa ba mu mu mu ngi mu ngi noonu peut-être appel la di ko wax ne la jeunesse est prioritaire mhm. c'est priorité rawatina jeunesse su Kër Massar man personnellement ci benn structure bu may liggéeyee toog naa ak moom ñu xaatim kayit boo xam ne ne tey jii c'est pour dooleel ndaw ñi la mais xam nga loolu deux casquettes la ci loolu euh, di ko ñaan rek ne ko ñu baral jéego yi bu ñu jógee ci tabaski bi na jàkkaarloo ak ndawu Kër Massar politique de jeunesse bi nga xam ne diggoon na ko Kër Massar ba gars yi askan wi nga xam ne tey jii ñoom ko yaakaar fal nañ ko. ñu doxal ko donc loolu la mais pour le moment j'avoue ko ne toog bi amagul politique de jeunesse bi nga xam ne moom la ko ñun xamaguñ ci au détail xamaguñ ci dara euh, département bu bees bi ànd nag lu mu war a am muy euh, infrastructure yi euh, yi war. waaw parce que boo waxee ndax am na lu mu war a am rek c'est mel ni def nañu des années. ba ñu ngi évaluer mais quand même damay wax ne bi ñuy dagg kii bi ba bi ñu koy bi ñuy def Kër Massar département. département. ñun ñëpp dañoo applaudir à deux mais dañu kontaan waaye dafa am baat bu ci teg mais mm-hmm. mais boobu noonu mooy lan bu fekkente ne dañ ñoo nar a jox département mm-hmm. ba pare amul accompagnement suivi dañu jàpp ne jaru ko mm-hmm. jaru ko mais actuellement nii mën nañu wax ne ne yenn infrastructure publique yi yoo xam ne mënul ñàkk am na fa mais am na ci yenn yoo xam ne ne c'est des infrastructures euh, yoo xam ne ni tey jii c'est pour le développement Euh, de de comment du département mhm. loolu mën naa ci cité SAT mhm. centre polyvalent mhm. foyer des jeunes yooyu yëpp amu fa amagu fa bu fekkante ne nag état du Sénégal mu ngi jàpp ci mbébétam ne war na jàppale département de Kër Massar ba léegi ñu jàppale loolu noonu ñu teg ko parce que ndaw ñi loolu lañ soxla rawatina stade bi c'est le moment ñu remercier ñi nga xam ne ni tey ji mooy mouvement bi nga xam ne Kër Massar réclame son stade amoon na fi di wax nag état du Sénégal loolu noonu ba tey suñu mbébét la suñu stade parce que day dafa xaw a métti nag ndaw Kër Massar ñu leen yëpp ci ay njaganjaay ñu dem di supporter ji mhm. ah di génn Kër Massar di dem feneen te Kër Massar nekkoon ci ñaay bi ñaay bi nekkoon quatre euh, ñeent commune mhm. ba pare benn arrondissement arrondissement bu gënoon a tuuti mais gën a peuplé mhm. kon mooy wan ne xat-xatloo bi am na fa pour nga régler seen problème bi nag du lenn lu dul nga nga nga nga def ay infrastructure euh, jeunes yi di mën a euh, comment dire am ay formation des centres de formation lii nga xam ne tey jii moom mooy euh, mbëbës bi comme ni mu ko waxee vraiment vraiment ak projet bi mm. y a espoir c'est vrai mais également ñu gën a baral seen jéego yi parce que mënu ma gëm Lac Rose nekk à côté Diamniadio nekk à côté nekk ay pôle mu leer na foofu noonu ay niche d'emploi am na fa Kër Massar ñu war leen ñu ñu war see mën a ñu war see mën a bénéficier wu 72 heures forum bi euh, ministre euh, de la formation professionnelle def na ko am na tâche d'huile parce que jeunes yu bari waaw am na tâche d'huile parce que ñun on a été ñun ñoo yoroon organisation bi parce que am na ay jeunes yu xaatim liggéey ñeneen ñi aussi bi euh, signé nañu des bons de formation la DER était là-bas mais loolu c'est pour man pour man hmm. loolu juste amorce la amorce la mais li ñuy xaar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy dans chaque commune ministère bi de salons d'emploi avec en complicité avec les mairies ñu mën a jël ndaw ñi ñu liggéey dugal leen ci entreprise te euh, di di lancer appel nag les entreprises qui sont au niveau de Kër Massar seen RSE naka lañ koy joxee ñu ngi koy ñu ngi koy joxeem joxu ko ñun on sent la jeunesse n'a pas senti ça fii ngay gis ay ndaw yu nekk Kër Massar war a jógee fii dem dem jàngi ci université wallahi boo taxawee fële na ci ci ci ci euh, commande ci garage bi sa yaram day daw mais entreprise yu nekk fii lan moo leen di teree tey ji ñu dimbale étudiants yi tegal leen ay car na sa def ci ay kii yoo xam ne tey ji en coopération avec la commune mais loolu amu fi. de mhm. mhm. ah des de formation yooyu yëpp amuñu ko. li gën a métti nag mooy mhm. jeune yi nga xam ne tey dañuy jàng ba dee dem ba licence war a am seen stage pratique dañuy wër bay bëgg a dee duñu am sax stage waxuma la waxuma waxuma laa sa emploi donc yëpp ay cri ay cri de cœur la quoi yoo xam ne tey vraiment il fallait que ñu wax ko. d'accord dégg nañ ko mu am tamit mooy ñàkk kaaraange gu ñu nemmeeku Kër Massar ndax dafa gaaw a màgg euh, li ni tamit justement ban message nga ci euh, apporter. waaw ñàkk kaaraange bu ñu xamoon conséquences yu ci nekk ci développement dëkk danañ indi kaaraange gis nga bu fekkante ne amuñu image bu rafet ci Kër Massar investisseurs yi duñ fa ñëw. te investisseurs yooyu noonu ñoo ngi xaar ñu am dëkk bu calme dëkk bu paisible te Kër Massar dafa nekk li nga xam ne ne tey jii péage deux fois deux voies bi ah terre bi lépp day permettre nit ñi converser wu ñëw mu nekk benn lieu boo xam ne ñu bëri esprit yu bëri ñoo fa daje culture yu bari mm-hmm. donc c'est un bi nga xam ne pour ñu développer ko sport loisir social culture mm-hmm. loolu dañ ko war a promouvoir cohésion sociale et la cohésion sociale bor lu du dara lu dul mu ñàkk suñuy quartier suñuy dëkkuwaay te loolu moom laa lay wax il a des organisations qui sont là ku mel ni wane pare nañu pour ñoom ñu ngi doon liggéey ci police de proximité fi nga doon gisee personnellement ñu dem ay causerie ànd ak commandant loolu musul am hmm. man dama ànd ak commandant dem di defi causerie di wax ak ndaw ñi di leen wax sur l'insécurité mais à un certain moment a eu un problème parce que le projet a été bloqué le projet a, a été bloqué loolu lépp ci xeetu ñàkk gëm ndaw Kër Massar yi la hmm. nañu jàpp xam na ne aussi jeunesse bi priorité la mais la sécurité également te priorité sécurité nag suñ ko bëggee am nañu wax ci conseil de quartier yooyu noonu dooleel leen parce que am na ñu bëri seen xam-xam màcc na mm. ci wàllum sécurité mais ñoo ngi tëdd seen biir kër mais nañ leen impliqué y a combien de retraités dans l'armée qui sont là-bas nañ leen recruter. jeexaleeg mbënd mi parce que nag Keur Massar ñaari at yu mujj yi gis nañ la mu dund. ba tax na njiitu réew mi euh, teel na artu ministre yi nga xam ne ñoom la concerné ñu daal di jël seen matuwaay ndax yow mii di ndaw représenté ndaw yi foofu ca département bi seetlu nga ni teg nañu ay jéego pour atum ren lii di mbënd mi ñu amoindrir le dégâts. waaw mbënd mi nag man bu ma ciy wax damay toog xam nga lu tax. Hmm. parce dañu dund loo xam ne musu musu dañu yaakaaroon ci àdduna musuñ koo dund hmm. Kër Massar ba mu jur loo xam ne ni tey euh, autorité bi gën a mag ci suñu réew ñëw taxaw fa prononcé wu parce que bi mu prononcé wu ñu te ñu jàpp ne prononciation boobu noonu mm-hmm. c' pour accompagner la population de Kër Massar en général mais à quatre vingt pour cent inondation yi moo tax joxoon na ay instruction moom la ñu doon xaar ci moom ces services au début ils ont démarré mm-hmm. commencé nañu yi nga xam ne ni tey jii mooy li ñu waroon def foofu noonu sur place ay canalisation comment dirais-je des oui yu war a sànni ndox bi mhm. yu war a ndox bi drainer ko yóbbu ko au niveau comment de la forêt def nañ ko parce que ñun du ñu wax lu ñu xamul parce que dañoo dem ba foofu noonu mhm. dugg ci biir forêt de gis nañ trois kii yoo xam ne tey ji trois lieux de drainage d'eau ci biir forêt bi parce que dañoo dem ba foofu gis ko mais am na ci yenn yoo xam ne ne tey ji suy am boo ko gisul sa xel day xawat ay tuuti mhm. mooy bu ñu waxee hivernage moo ngi ñëw des des des kii des activités de de des activités pré-hivernales ay curage ainsi de suite loolu dafa baax loolu dafa baax bu ko defee nit ñi aussi am njort lu rafet ne lii kat ñoo ngi ci mais à part quelques deux à trois jours yi ñu gisoon yenn agents municipaux yi nga xam ne ñu ngi doon def yenn curage au niveau du sud moo tax may wax waxuma noor nag au niveau du sud moo tax may wax. à part cela amut leneen leneen lu ñu fa def donc c'est le moment aussi de dire au président de la république que que muy nord que muy sud vraiment c'est important de nous venir en aide nañu venir en aide commençant maintenant par le maire lui-même moom ci boppam na jàppale nit ñi woo population ci liggéey ñu ànd jàppale ko te yàlla rek tax ñu mën a defar suñu maire bu fekkante ne dafa am nu fa demee kenn du mën a liggéey dëkk bi te euh, côté inondation bi c'est trop sensible. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Dame Thiam jiite conseil de la jeunesse bu Kër Massar. merci beaucoup Elisabeth man maa leen di remercier ci vraiment opportunité bi ngeen ñu jox en tant que ndaw wax ci li nga xam ne moom lañ dund moom lañ sentir loolu noonu yëpp nag c'est pour que ñu mën a bàyyi xel euh, département bi ñu nekk mais commune bi commune yi nga xam ne ñoo ci nekk.